asalaamaaleykum mbokk yi tey la àllarba juróomi fan ci jumaadal ula muy weeru rakkaati gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fanweeri fan ci weeru novembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar juróomi fan dafa bokk ci lim yu fàttee konte ci àllarba ji rafetul àllarba ju nekk nag dees cee tere tere ak wàccandiku ku ca watu wala ku ca tàggoo wala ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbugalum sawaraw jahannam allahumma inni audu bika min adabi jahannam allahumma inni audu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi seen boroom kenn la seen baay kenn la muy aadama arab gënul ku nekkul arab ku nekkul arab gënul ak arab ku xonq gënul ku ñuul ku ñuul it gënul ku xonq lu dul ci ak ragal yàlla ndax jotal naa ñu ne ko jotal nga yow yonente yàlla bi xadis bi ahmad nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayuha annaasu ala rabbakum waxidun wa inna abaakum waxid alaa laa fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin wala li ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bi taqwa abalaqtu qaalu ballaxa rasulullahi salallahu alayhi wa sallam rawahu ahmad waxtu julli suba waxtu naata bi juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom ñaar tisbaar benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak ñaar tàkkusaan ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñaar timis juróom benn waxtu yu tegal fanweeri simili ñeent gee ñaari waxtu yu tegal juróom fukki simili loolu mooy waxtu julli yi ci Touba ak li ko wër bu fekkee ne ko Touba soo ko féetee ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre dina wàññil benn simili soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre dina benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak benn di so juróom benn waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin